acte du jour lu ci gën a fës bokk na ci lu am tey ci mbas mi téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo doon dolleeku ci lim goo ko fi am téeméer ak fukk ñoo tey ñaar daal nañu si ñàkkat seen bakkan division spéciale de cybersécurité daal nay rek teg loxo juróom-ñaari doomu aadama nga xam ne rek bokk na si ñaari xale yu jigéen yoo xamante ne ni ay mineur lañu ñoom ñoo ñee ñëpp nag di ay doomu autorité dañu doon rek sàcc ay chèque ak ay carte bancaire gi jot bés bu ne ay alerte jigéen yi ak i ay victime rek si drogue aphrodisiaque bu ñenn si soxna yi rek di jëfandikoo di koy def seen euh, awra yi di rek ab sunguf sa nga xamante ne ni dañu koy mélanger ak xeme loolee sax di leen di jural ay gàllankoor ab euh, soxna sa nga xamante ne ni rek mës na koo jëfandikoo am na la mu ci xamle daañu leen ko jottali màggalu ba Touba Touba bi nga xamante ne ni jamono ji ku nekk ci àddu ñu daañu si àddu ci digg xibaar yi euh, rek ba ñeneen ñi di naan dañu koy annulé ngir mbas mi ñeneen ñi di wax euh, contraire bi Mansour Diop nag am na la mu ca xamle daañu leen ko jottali. réewu Mali tàng na jib rek euh, ni ki démb si talaata ji ba tax rek danañu fa doxantu euh, ci njiit ma nag di Ibrahima Boubacar Keïta militaire yi rek ñoo ko coup d'état ci guddi ba mardi 18 jàpp mercredi 19 août la ca tukkeewaat ci xibaar daañu leen ko xamal mbirum Hiba Thiam mu ñàkk bakkanam ca soirée privé ba ñu doon amal almadi di fa doon jëfandikoo drogue xibaar bu bees daal dina si am agent police ba nag nga xamante ne ni da cee laale mooy sàkku rek jamono ji bàyyi ba ndëgganeku mbirum série bi di infidèle ba muy daw ba tey rek askan waa ngi si yëy di si yàbbi nee nañ rek ay yu bon la ñu fay def yoo xamante ni day yàq suñu xale yi waaye nag ni kii rek euh, samedi la ñu dawalaat beneen épisode boo xamante ne ni daa mel ni rek dañu leen dégg fanaanal merlo ba futtu ña nga xamante ne ni ñooy collectif bu ëmb ñeent fukk ak juróom-ñetti doomu aadama ya déposé plainte jëmali ko rek si ñuy amal boobule série ña cambriolé euh, boutique chinois ba nekk ca Santere nga xam ne daal dinañ leen di teg loxo euh, policier bu ñu raje ba ca bokk nekk di Mohamed Gassama da doon rek jéemaat dawaat génn ca prison ba loolu yëpp bu yembee ñu toftal si tàggat yaram ak rek lu ancien joueur équipe nationale du Sénégal bii di Souleymane Sané xam le rek si euh, suñu réew mi ngir suñu gaynde yi mën na rek gagné coupe d'Afrique waaye itam dinañu wax tamit si mbirum Paris Saint-Germain ak rek ki nga xamante ne ni mooy Idrissa Gana Gueye li moo ci gën a fës nees tuut ñu yaatal. bàkk ba jib na nuyu nañ leen yéen ñu safoo Dakar Buzz ngir taataan xibaar yi mbas mi la ñu koy dooree ci suñu réew mi di Sénégal bu ñu sukkandikoo ci ministère de la santé et de l'action sociale tey junne ak ñeenti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñett la ñu testé téeméer ak ñeent fukk ak benn ñoo ci positif juróom fukk ak juróom-ñett dañu leen wàll juróom-ñett fukk ak ñett di ay cas communautaire téeméer ak fukk ñoo wër tey ñeent fukk ak ñett nekk sauvetage ñaar ñàkkaat seen ci mbas mi nga xamante ne ni ba mu ñu tey eh, fukki junneeg ñaar ak ñeenti téeméer ak ñeenti fukk ak juróom-benn doomu aadama ñoo ko fi jot a am eh, si ñoom ñoo ñee nag juróom-ñaari junneeg juróom-ñetti téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar wër nañ si ñaar téeméer ak juróom fukk ak juróom ñàkk si seen a bakkan fi mu ne nii nag ñeenti junne ak ñetti téeméer ak fukk ñoo nekk sous traitement division spéciale de cybersécurité daal dinay teg loxo juróom-ñaari doomu aadama nga xam ne bokk na si ñaari xale yu jigéen yoo xamante ne nii ay mineur lañu ñoom ñëpp nag di ay doomu autorité ñoom nag ñu ngi leen jàppee si diggante Dakar Saly ak Thiès ñoom nag ay chèque ak yi rek carte bancaire la ñu doon sàcc lépp nag ñu xayma ko si lu war a yemook téeméeri million si suñuy koppar gannaaw rek ba ñu doon retiré ay koppar yu takk lool ci compte victime yi Eh, bu ñu xayma nag lépp juróom-ñeenti chèque la eh, siis yi maanaam juróom-benn yi Dakar ñaar yi sali ak benn bu ñu signé eh, ca Thiès la ñuy jëfandikoo rek si montant wu téeméeri million suñuy koppar ku nekk nag daa amoon rek rôle bu muy joué directeur général lu benn boîte nag bu siiw lool moo déposé ab plainte contre X si lu ñeel vol de chèque ak tentative de retrait frauduleux ci noonu la enquêteurs yi tàmbalee rek liggéey bi ba ñu defee seeni consultation la ñu jàpp rek si diggante fukki fan ak ñeent jàpp fukki fan ak juróom-benn ci weeru août bi ñu nekk juróom-ñaari nit yoo xamante ne ni bokk na si ñaari xale yu jigéen ya nga xamante ne ni ay mineur lañu si diggante Dakar Saly ak Thiès. ma junj leen ko léegi ci ndoxtal li ma wax ci cambriolage boutique chinois bu nekk ci allée santenaire bi policier bu ñu rajee di Mohamed Gassama di chef gang ba da doon rek jéematee daw génn ca kaso ga ak complice am bile di Adama Diouf mu ñu tee rek ngir mbirum yamba bu nekkuloon nag li di vigilance garde pénitentiaire yi seen coup boobee daal di réussir benn bruit nag moo leen dal di yoo yoole ndax ba ko garde yi déggee la ñu jóg di contrôler Diouf ak rek Mohamed Gassama di jëfandikoo poubelle ya ngir rekk mën a yéeg ca miir ba waaye nag lañu ñoo bëggoon a def rekk amul ndax garde yi dañu leen a tegati loxo du nag guléet Mohamed Gassama di jéem a daw ndaxte a jéemoon na tamit daw génn ca kaso benn fan ci weeru août. Euh, ca Mbour la jëm euh, brigade bu fa nekk naka daal dina ñuy teg loxo rek ab bandu defkatu ñaawteef ñoom ñooñee nag ay phobie rek la ñuy yëngu gannaaw nag ba ñu bëggoon woon sax produire lu ëpp téeméer rek juróom fukki million ci suñuy koppar ñett nag si ñoom la ñu jot teg loxo ngir association de malfaiteurs ak assassinat Saloum Keita ak Famara Sonko yóbbu nañ leen démb ci kanamu chambre criminelle bu Dakar gannaaw ba ñu leen teewee ñeenti at Saloum Keita nag ngir eh, tàggoog métital yu ko tantam di teg moo taxoon rek mu faat ko moom Fatoumata Cissokho ak eh, rek eh, paaka ba mu ko jam si weeru février atum 2016 loolee nag da si woon rek ak kooke di Famara nag taxaw nañu rek démb ci kanamu chambre criminelle bu tribunal bu Dakar ngir rek association de malfaiteurs ak rek assassinat mu nekk nag boulanger Saloum Keita ak rek kooke mu complot di Famara eh, fu ñaar fukki atub kaso rek la ñu teg ci seen ndodd leneen dëgg bi daal dinay feeñ ñu àtte ko nag àtte reykatu nit eh, fukki atub kaso ak juróom rek la tribunal teg ci ndodd Ousseynou Diop laata rek ñuy xamle ni moo def la ñu koy tuumaal eh, ba ñu jotee nag constitution partie civile bi bu yaay ji ak bu ñaari sër tribunal daal dinay rek alloué cinquante ak vingt cinq millions ngir ñoom ba noppi rek rejeté regroupement wu taxi taximan yi ci fàttali Ousseynou Diop dafa faatoon rek ab chauffeur taxi bu ñuy wax Ibrahima Samb ci atub 2016. junj naa leen ko ci ndoxteel li agent de santé yi ñoo ngi jot rek bës yi ay alerte jigéen ak ay a ci drogue aphrodisiaque bu ñenn si soxna yi di jëfandikoo bu ñu sukkandikoo si témoignage bi loole nag ñuy def si seen awra yi poudre bu ñuy jaxaseeg xeme la poudre boobee nag mooy yàq rek àdduna soxna yi jamono ji rawatina ña dëkkee ca Casamance bu ñu sukkandikoo si kenn ka koo jëfandikoo poudre bu ñuy tàkk ci sachet bu ndaw la di koy jaayee rek ñaar fukki dërëm bu ko defee rek dang siy coppati tuuti def ko ci sa awra ba loolu weesoo nag xale bu jigéen boobee ne sax poudre boobu day joxe cancer du col de l'utérus waaye itam infection vaginale ci noonu mu ne sax boo ko defee da ngay rek am jafe-jafe ngir bàyyi ko doo rek mën a benn bés te laaloo ko boo ko laalul guddi rek doo nelaw nelaw day mel ni daal dangay dof comme genre drogue daal lañ ko mun a méngolee mu xamle ko moom soxna su ko mës jëfandikoo mu ba tey rek ngeen di taataan xibaar yi ci Dakar ba ma addu rek jëmale ci màggalu Touba gi ak lu si Mansour Diop xamle moom nag nee na sénégalais moo rek mën di nettali gént kuy dund ndax rek ba tey xalif bi waxula rek ne ñëw leen màggal si te tamit état waxagul rek ne bu kenn màggali te décision bu mujj bi si luy euh, am si képp lay jógeekoo te ñoo ngi waxtaan ci loolu ba loolu weesoo nag Mansour Diop ne nag ñu si yëkkati ay kàddu yëpp amuñu décision finale bi te CDD ba ñu defoon it à wii clos la woon maanaam dal kenn euh, fekkeewul woon seen biir la ñu ko defoon ba tax na rek képp ku si wax fi mu ne nii xamoo rek lan mooy décision bi da ngay wax rek di sànni mu xamle ko moom Mansour Diop. xibaaru biti réew damay dugg rek ca réewu Mali njiit ma di Ibrahima Boubacar Keïta daal nañu koy daane ak ab coup d'état militaire ci guddi gi fukki fan ak juróom-ñett jàpp mercredi fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru août bi ñu nekk Ibrahima Boubacar Keïta nak daal dinay sax mujjee xam le ni tekki na ndombal tànkam gannaaw rekk ba ko soldat ya tegee loxo digg bëccëg ñu organiser nag boobule coup d'état militaire daal dinañuy xamle ci anam bu gaaw ne sax dañoo bëgg rek def gouvernement civil de transition euh, buy yor rek organisation élection yu bees yuy ñëw leneen bu ñu sukkandikoo ci l'observateur suñu réew mi di Sénégal bokkul ci top 1000 classement euh, Shanghai ranking consultancy buy rek segg université yu gën a xarañ ci àdduna bi ci atub 2020 bi bu ñu sukkandikoo ci directeuru qualité UCAD bi di Mamadou Sarr euh, situation bi ni mel défaut de lisibilité la ñu koy mën a expliquer waaye du problème mu sélection classement globalu Shanghai bi 2020 bi nag euh, mille université maanaam junney daara yu kawe yu gën a xarañ rek ci àdduna bi lay méngale bu ñu sukkandikoo si juróom benn indicateur nga xam ne rek bokk na si euh, limu lauréat wu prix Nobel ak rek médaille Fields si personnel bi euh, limu ña nga xamante ne nii ñooy saytukat yu mag yi limu article yu publier ci revue yu nature ak science naw nombre article yu ñu indexé ci science sous citation ak rek euh, performance académique bu effectifu jàngalekat yuy saytu wa illaa rek ñuy saytu di indi. maaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu mbokku jullit mbokk mbokku yi mbokku réew mi ak mbaa bitim réew ginnaaw bi ñu leen nuyoo di leen siyaar di leen ñaanalal jàmm ak tawféex indi nag loo xam ne nag. jaamu yàlla la boo xam ne yaakaar naa ni sunna naa Muhammad lay utilisé woo moom lay barkeeloo bëgg koo jaamu bëgg koo jàppale jaamu yàlla yi eh, jëm ci wàllu ñaan ak faj li jëm ci wàllu cigarette pon yamba ba ci drogue tàmbalee ko ci cocaïne cocaïne bi nga xam ne moo lëmbe àdduna bi lëmbe bitim réew lëmbe biir réew mi képp ku ko yàlla nattoo nga koy def te bëgg koo bàyyi boo jokkoo moom ci kàttanu suñu borom yàlla mën naa def nga bàyyi ko ci lu gaaw waaye yemu ca dacaa boole li nga xam ne mooy boo koy utiliser maanaam tuuxum cigarette te yàlla def nga bëgg koo bàyyi boo jokkoo moom yàlla mën na jàppale dimbali la nga bàyyi ko ci lu gaaw yemu ca dacaa boole li nga xam ne mooy cigarette cigarette bi nga xam ne li ci ëpp góor ñaa ko koy utiliser li ci ëpp jigéen ñaa ngi koy utiliser képp ku jokkoo moom yàlla mën na laa dimbale baaxe la bu ngeen waxtaanee ñaan mu laabiré la ko nga bàyyi ko ci lu gaaw yemu ci dacaa boole nag li ne mooy sàngara sàngara nga xam ne mooy ndeyu ñaaw téef ne kenn bëgg koo takkoo ak moom képp ku jokkoo ak moom ci kàttun yàlla ak suñu borom bu ngeen waxtaanee ñaar mu laabiré la nga bàyyi ko ci lu gaaw a gaaw a gaaw yamu ci nag dacaa toftal li nga xam ne nag mooy xale bi sawlal mbaa mag muy tuur ndox ci kaw kawlal yaakaar naa ne bu ngeen jokkoowee mu laabire ku dindi ko ci lu gaaw ci loo xam ne lépp lépp lépp sunna Seydina Muhammad la ak xam-xam boo xam ne suñu moo ko baaxee mu bëgg koo laabiri waa biir réew mi nag da caa boole nga xam ne nag mooy li jëm ci wàllu cocaïne cocaïne bi nga xam ne moo lëmbi réew mi jaaxal jamono bi moom lay jël dindi la ko ci lu gaaw a gaaw a gaaw gaaw te utiliser woo ko lu dul ci lu kitaabu rabbi kaadal yi bu kontu lahu lillahi bi sa kontu téereb yàlla bi la sunna Seydina Muhammad moom lay ñaame moom lay dimbalee jaamu yàlla yi seete leen ko ci lu gaaw yaakaar naa ne ku fa dem mu fat la te ku fat doo fanaan biti xam-xam bi mu am set na sell na te utilisé wu lool li nga xam ne mooy téerab yàlla bi di kitaabu rabbi kaana li wakuntu lahu lillahi bik sakuntu dem leen seeti ko numéro yi mi ngi affiché foofu ci baaru écran bi ku jub la ku sell koo xam ne dimbali population bee ko tax a jóg dem leen seeti ko ku fa dem mu fat la te ku mu fat doo fanaan biti jërë ngeen jëf ku bëgg a bàyyi drogue yàmba poon ba ci sàngara ba li nga xam ne mooy mag muy tuur ndox ak xale seeti leen ko ndax loolu yaakaar naa ne phénomène la bu ne ba ñu doon amal ca Almadi di fa jëfandikoo drogue bàyyi ndëggandiku rek lay sàkku jamono ji may waxee ak ci doyen attekat yi xibaar bi nag journal bi di Les Échos moo ko biral ci fàttali bés bu musiba boobee di am police policier boobee nekk en service ca commissariat central bu Dakar moo escorté woon rek ak motoom jaajaatal ak xiba Thiam ba almadi loolee sax moo taxoon rek ñu contourné woon couvre-feu bi. collectif bu ëmb ñeent fukk ak juróom-ñetti doomi aadama yu déposé ab plainte jëmali ko ci série bi di infidèle gën nañoo rek mer ba futtu ci li ni mer gannaaw ba ñu xam ne ne épisode bu ñu dawal samedi rek moo gën a tee sa garaaw dañoo def rek la leen neex comme si dara xewul di wëyandi rek di. day loo xamante ne ni day yàq ndaw réew mi ndaxte rek même séquence yi la ñuy teg soppi wuñ si lenn coordonnateur collectifu plaignant yi sax di Serigne basiru Mbacké Cheikh Astou Fall ak rek vice président wu ONG Jamra daal dina ñuy rek jubali ca tribunalu audiovisuel si seen ñaareelu audience boobee ñu jagleel njiitu CNRA tàggat yaram ancien joueur équipe nationale du Sénégal bii di Souleymane Sané nee na rek nañu jéem a gagné coupe d'Afrique bu ñuy xaar ay at si noonee mu ne sax yaakaar na ni dina gis Sénégal yëkkati coupe bi laata muy génn àdduna ba loolu weesoo Souleymane sanne yokku si ay kàddoom ni rek am nañu joueurs yi ngir gagné ñuy joue sax si ay club yu mag lool laata sax muy naan bu ñu nekkul si terrain bi mënuñoo ñàkk nekk ay xarit waaye nag si terrain bi dañoo war doon benn ba soppi mentalité bu ñuy demee eh, xàccandoo doorandoo ngir rekk am lu ñu bëgg. Paris Saint-Germain laa koy tëjee guléet ci histoire am kii di Idrissa Gana Gueye di dem finale Ligue des champions gannaaw rek ba mu amee ndamu ñetti bal ci dara ci kaw Leipzig ba loolu nag weesoo Gana Gueye ak Babacar Ndiaye sax bu team manager Leipzig daal di nañuy rek gisee ni ki dem ci talaata ji taxaw rek di waxtaan ñoom ñaar ñu nemmeeku nag ci seen doxalin bég bu ñu bég maanaam kontaante bu ñu àndal ci rek lu ñu gisee ñoom ñaar ñooñee di Idrissa Kane Gueye ak rek ki nga xamante ne nii mooy Babacar Ndiaye.